صلاة لسي في كل fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar di bis bi nga xamee ni Serigne Touba ci la dëgmal loolee ni duppe nattu wi Serigne Fallou Galass si la lan ci àndal ci bëyitu bis bi. mbokk yaakaar naa bayit bi day suwaat rek ci. engagement yoy nga xamné sëriñ bi diko da koy jël te diko waxal bopam dafa wax ci bayit ba muy baytu bis bi wa an akuna shafihan li xawmi li xawmi aw nitam muy bayit bu doy war ana lan la ci sëriñ Touba na ma wax fofu na am ci bir engagement bi ma jël ci liggéey li mustafa na ci jële bu ëllëgé sama nit ma leen di ramul sama bop kenn duma leen ramul wa an akuna shaafihan li xaw na am darajay ramul sama nit sama bopp wa an akuna xaadiman fii daw mi loolu fi ma koy jëlee naa nekk liggéeykatu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ca fa réewum daaw mi nga xam ne kenn mësu ko faa liggéeyal kenn mësu ko faa jaamu su boobaa mën naa nekk liggéeyaa konam bi nga xamante ne bii foofee lay jëlee habudullahi wa xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon dakate sëriñ bi moom ay ay principe am daf koy waxanteeg yàlla lu leer nañu lay doon yàlla nee na maa ngi lay bëgg a teg nattu sàngam nga ne ko natt boobu loo ma koy jaaye mu ne loo ci bëgg nga ne ko nangam mu defal la loola kon wa an akuna shafian bu njëkk bi mooy martaba bu njëkk moomu mooy ba mën a ñokke daal tukki bi moom li ma ciy njëkk jële mooy tex sama nit moo tax mu ne eh, ijhal rujuhi ilaa xawmi saadatana ilaa xawmi saadatana su ma delloo ci sama nit ña la ma leen doon sàkkul ngir ma doon ko na seenu texe loolu la ko ko may nag wa an akuna shafian li xawmi moo ko may loolu kon yaakaar naa ne ñi yaakaar sëriñ Touba bu sëriñ Touba garanté seen àjjana bu ëllëgee la ko may mooy wa an akuna xaadiman fi daw mi nekk gam nekkoon di liggéey ko liggéeykatu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ca réewum daw mi nga xam ne kenn mosu faa liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wa salaam Serigne Touba ko fa liggéey boo xam ne nee na jëlee naa ci loo xam ne wala da daj naa ci loo xam ne moo gën a moo gën a metti wala boog looloo ko gën a sedd mooy ni malaayika ma di noccee ak ruu ci ruuxu doomu aadama méttiit wa muy àndal nee na la ma daj ca réew maayom ba ak daaw mi moo ko gën a métti loolu wax moo jëlee mu jëlee fa ba mu réy mi nga xam ne aw nitam bu ëllëgee yàlla duutu seet seeni mbir ci moom sëñ Tuubaa rek la koy àtte lool nag li fa mu ko jëlee ca waan ak koona shaafihan li xaw mi waan ak koona xaadiman fii daw mi bayitu bis bi ba ëllëg ak jàmm ci Dakar ak Touba شهر وفي سفر حماني على ماني مع لبس والسفر